mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli la ilaha illa ant yaa xayu yaa qayuma bi rahmatika astaxiis wa sallallahu ala xabibi qulubina wa tabibi nufuusina wa shafiici zunubina abil qaasim al mustafa muhammad wa ala ahli baytihi tayibiin altahirin wa ashaabihi al axyaai almuttaqiin wa ala jamici al anbiyaai wal mursaliin subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalaamu aleykum jamian wa wa barakaatu mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di jiital ci nuyoo beeg ziyaara bi alxalifa al cheikh sunu maam alxasan Seck di ko ñaanal yàlla fan wu gudd lool te ànd ak wér yal yàlla yokk martabaam yal yàlla yokk ijaabaam yal yàlla yokk xabuulam yàlla yaatal fay doom naal yi mu naal ci kër gi ak ci diine ji ak ci mbokk yi yëpp yàlla sottal ci ngëneelam di nuyu tamit sunu maami bopp maam Mouhamadou Ñaaxa Seck di ko ziyaara di ko ñaar li ñaal maam aas mooy yàlla yokk ijaabaam yëkkati martabaam yokk xabuulam yaatal fay ñu ngi nuyu sunu beneen maamu bopp mu maam Aramaan Seck sunu maam ju baax ci ñun yàlla na yàlla guddal fanam lool tam ànd ak wér yàlla yokk ijaabaam ak maqaamaam ak kéem yaatal faydoom ñi ngi nuyu borom bis bi muy a cheikh Mouhamad Mourtada Ousmane Seck di ko ñaan yàlla yàlla na bi yàgg rafet na yàlla na yàlla may ko wér guddal fanam yàlla na yàlla yàggal toogaayam xam naa ne ñaari tànk lañu fi ñëwee ndax dañoo ñëw teewal Serigne Yaaba suñu kilifa mu ne bu ngeen demee da ngeen jot li sama nuyoo sëñ Mortala sëñ Mortala sëñ Yaaba mi ngi lay nuyu mi ngi fedd li cofeeleem ci yow ak njaboot ak Baye Ousmane gépp nee na mi ngi yeesal ñaanam ci góor gu baax gi Baye Ousmane waaye ñu ñëwal tamit daara imaam Amari Ngoone Ndaak ànd ak imaam Mor ak oustaz Mokhtar Diop ak Baye Issa Diop. ñu teewal association Bahadara bi nga xamante ne bii nii sëñ Cheikh Ndiaye moo ko jiite ak sëñ Xalifa mu jiite liggéey ba ndax daara jooju sëñ Mortalla mii ci kilifay daara ja la bokk tur yu tedd yooyu ñu tudd nag ñu ngi ci dugal tur ñu baax ñu fi teew ñëpp yal yàlla nangul ñëpp mu mel ni ki Baye Ousmane rahmatullahi alayhi dafa amoon ndimbalal yàlla ndax kaana labiban kaana labiban moom day ku amoon xel mu sell mu rafet la allabiib mustalax quraan yi la baatu alquran la alquran fattaqullaha yaa ulil albaab al albaab mooy xel boo demee ci philosophie bi ñuy définir xel dañ daan c'est la lumière naturelle qui nous distingue des bêtes et rend tous égaux mooy làmp boo xamante yàlla moo ko monteel ci nit mu wutale ko agrab yamale ñëpp loolu lañuy wax waaye boo ñëwee ci nit yàlla yi xuus ci alxuraan gën naa xóot loolu ndax yàlla bi mu nammee nit def li mu def ci moom daa bëgg wàcce kàddoom ci nit daa wàcce am xel pour mu taataan ko al aqlu huwa alladi yatalaqa al waxya wa yafhamuhu wa yuwassifuhu xel mooy taataan kàddu yàlla moo koy xam moo koy faram-fàcce mooy dimbali ay cër ñu jëfe ko daa fekk nii nag kaddu yàlla gi yàlla dafa catégoriser nit ñi am ñetti xeeti nit am na ñoo xam ne bi ne kaddu yàlla duñ ko dégg seenum xel jëmaluñu ko ci lu yàlla wax wa in tad'uhum ila al huda laa yasma'u wa taraahum yanzuruna ilayk wa hum bu yubsirun yàlla nee na boo dee wax duñ la déglu am ñoo xam ne kaddu yàlla di leen di gêner booy ak ñoom ci politique bi yaay arrêté sport bi dañ koy dem ba jeex waaye boo tuddee yàlla rek isma azzab qulubu lazina laa yuminuun am ñoo xam ne bi ne seeni xel moom dañ ciy bàyyi xel yàlla bàyyi Usmaan bokkoon yàlla nee na ñooñu ñu waaru innamaa yatadakkaru ulul moom cëram dafa koo liggéey am na ñoo bi nii seen wilaaya bàyyi ci la ñuy séddu waaye moom cërëm da liggéey boo ko dee xool histoire Ibrahima alayhi salaam yàlla day buy tudd Ibrahima di wax ay mayam may ka may da cee boole doomam ak sëtam isxaq ak yaqub boo wa tilka hujjatuna aataynaa ibrahima ala qawmi ba ca biir nee wahabna lahu isxaqa wa yaqub ana ismail ca doom yi la bokk waaye tudd ko ba mu paree ca ibrahima bay tudd ya ca biir ponkal ya fa la dugal ismail wa ismaila wal yasaa wa yunusa wa luta nga ñëw sóotu Mariama wasgul kitaabi Ibrahim topp ko ba ca fexe mu na ca doom ja Ishaq ak sët ba tudd Ismaïl pare daal wasgul kitaabi Moussa wasgul fi kitaabi and Ismaïl boo ñëwee sóotu anbiya noonu la lu tax parce que Ismaïl dafa liggéey ni bàyyam liggéeyee séddu ni bàyyam séddoo bàyyi Ismaïl tamit daal liggéey ba am cëram ab cëram daf koo liggéey ndax am xelam da koo jariñoo ci wàllu yàlla bi mu ñëwee xool adduna jàngat ko ni mu jaxasoo ni mu rabajoo contradiction yi nañ bàyyi dax ni ko yàlla fële xool yoon ci yàlla Muhammad ndax yàllaa ko joxoñ waaye in tutii'uuhu tahtadu ku topp yonente bi rek gindeeku yonente bi lenn la am lu muy jox nit ñi mooy alquranul karim bàyyi Usmaan ñooy ca boo xoolee dernier kàddu bu sëñ Madické def ci gàmm ci daaray kokki xam ñu ngi waajal kokki kokki ñu ngi koy waajal ndax ñu ñëpp njabootu kokki lañu te yaakaar naa fukki kaang yoo yoo wañ tànt bi juróom-ñeenti kokki lañ génne sëñ Madické la mujj wax kokki xam nga lu mu wax alquran huwa aljaami alquran gars yi mooy wax de net loo xam laay nettali réy nañu ŋaam réy nañu xel mën na nañoo pexe waaye alxuraan fi lañ koy bàyyi Haaruna Rachid daa toog ci biir néegam dégg benn jigéen muy liggéey di way awqid yaa saaxi fa inna layla laylun qurru wa riixu yaa waaqidu riixun surru asaa yaraa naaraka man yamurru in jalabta dayfan fa anta xurru astagfirullaha li danbi kullihi qadal nafsan bi gayri xillihi misal gazaaya naiman fi dallihi wan tasafa walam usallihi mu ne ko yaa réewi làmmañ yaa mën a wax wax ji kii amul solo xool nga ci alxuraan yàlla nee na ci alxuraan wa waxaynaa ilaa ummi muusa an arjiihi fa idaa xifti alayhi fa alqiihi fi lyammi wala taxaafi wala taxzani inna radduhu ilayki wa jaalnahu mursalin xool aaya bi ñaari fi'l maadin a waxaynaa xifti ñaari fi'l mudaari'un taxaafi taxzani ñaari fi'l amrin arjiihi alqiihi ñaari ismu faa'il radduhu jaa'iluhu ñaari ismu maf'uul muusa mursaluuna ñaari laa laa tax mu ne ko eh noppil goreel naa la kon li suñu ma wax alxuraan mooy jaamia mooy jaamia yonent bi nag présenté nañu ko ni wax boobu la suñu Ousmane dégg yéen nit ñi Muaz ibn Jabal moo ko nattali in aradtum yonent bay wax de aïcha suada wa mawta shuhada wa najat yawm alxasri wa zilla alxarur wal huda yawm al dalala faddusul qur'ana fa innahu waxaatu min asheytaani wala jahaan filmé yonte bi nee na bu ngeen bëggee dund dund ku texe nekk ci àdduna di dund àjjana mën naa nekk de nekk ci àdduna bii di dund àjjana nee na jàngeen alxuraan bu ngeen bëggee dee deewu ku shahid ku shahid ni muy dee kenn ku nekk ñun yàlla bon naa ñaari malaaka wa inna aleykum la xaafizin kiraaman kaatibin ñaari malaaka yi xam lu ñu lay topp li nga la ngay wax ak li def la ñuy bind dara du leen raw bu ñu demee nag ba sukuraat ñëw ba say cër duñu yëngu ñu teg dossier bi yàlla nee na ko shahid maa jël dossier ba man yàlla ci sama mbaax lépp lu ko nag ñaawteef ma def ko aw yiw fa ulaayika yubaddilu llaahu sayyi'aatihim hasanaat nee na borom alxuraan noonu lay génn àdduna te borom alxuraan li wér mooy jëmmam du laal suuf bu ñu koy suul suuf si suuf si bàmmeel bi jëmm ju du ko laal agis gis nañ góor gu wér gu ñu xam gu ñu xam ku yàlla may teg na ci bëtam. ñu ngi suul ab xale biñ ko dugalee bàmmeel bi yaa weeku mel noo xamante ni bi nit mënu ko wax ñaari malaaka ñëw ñaari jëm yu rafet jël koor ba góor gi xëm beneen yoon ba mag ja ñëw ñu koy suulaat mu ànd ak sagoom mu mel na meloon bi mu laajee yaay gi dani ko kii da jàng alxuraan mag gi du liggéey di ko dimbali yamal bis bu tàng bi ngi noonu bis bu metti bis boo xamante ne bi nii ñaari mbir ñu koy caractériser anarchie totale ndax yàlla neen bis boobu amul sant fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba waaw bis boobu da lëndëm këriis waaye kaag moo gis mu doon tudd alxuraan karim yàlla affecté na ci bàmmeelam ñaari malaaka ñu koy tertu bu ne ba dëkk ñu ne ko yow bul tiit bul jàq waaw yàlla loolu wér la laa yaxzunuhum alfazamul akbaru wa tatalaqaahum malaikatu haada yawmukum tuuhaduun yàlla nee na am naa benn turbine VIP man yàlla maa koy installé maa koy climatisé andi ñu baax a ñuy kii waa alxuraan fa lañu jëm yonente ba wa zilla yawmal haruur lii la Baay Usmaan gisoon moo tax mu ne yàlla àdduna jàpp ci alxuraan yàlla xam nga nag gin la ndax yonent yàlla Moussa ba yàlla nee loo yor fa maa tilka bi yamiinika yaa Moussa qaala hiya aw yat la yàlla aw yat la atawakkau alayha wa ahushu biha ala xanami waliya fiha maarib uxra aw yat la mu ne ko sànnil mu sànni ko yàlla wan yat bi manen fa iza hiya hayyatun tasaa bu bëggaa di andi yàlla ni jëlaat na sax la ko laaj Moussa ci waxin moodu moodu la woon dem liggéey bay ñibbisi ànd ak soxnaam yàlla ne ko luy sa programme mu ne ah sànnil mu sànni mu wan mi ngi waaye yat loolu sànni bu mu ko jëlaatee weyaan yat la adduna ji bàyyi Usmaan sànni ba xool alxuraan mën ko lii adduna ko teewaatee benn àdduna la kon alxuraan moom moo fi ne sëñ ma dëgg waxal moo fi ne la neen néew fii ku bëgg a texe fii bëgg a am jàmm dudd ci kaw suuf ci jàmm dee ci jàmm dem barsàq ci jàmm dem penc ma ci jàmm ñu xisaab la ci jàmm nga yéeg pont bi jéggi ci jàmm